dimanche mooy benn fan ci weer rabiul awal loolu mooy ne bési gàmmu dafay nekk àllarba 27 septembre guddik alxames ci la ñuy def gàmmu fii ci Medina ti Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ñu ngi ndokkeel mbooleem jullit ñi ñi ngi ndokkeel Sénégal ñi ngi jotal ndokkeel eh, sëriñ bi ci mbooleem réew mi ndokkeel président de la république goudi gu màgg la koo xam ne ci Medina dalé ko ci ben fan ci rabé goudi gi sax tay bet bu set fet la ba bési gamu ni ngi ñaan yalla ñi ag ci ci jamu yalla may ñu gamu go gamu gu nangu la yalla wattu gan ñi ñi ñew ci jamu delu ci jamu ñi ngi denk tim autorité yi lepp luñu mëna def ci yombalal gan ñi nga ni. ni ñu ngi bàyyi seen dëkk te mënoon faa toog gàmm bàyyi seen njaboot mënoon faa toog gàmm tànn Sénégal tànn Médina pour ñëw gàmmook ñun ñi ngi ñaan autorités yi ñi facilité facilité leen seen yoon yombalal leen lépp loo xam ne dana leen dimbalee ci ñëw ci gàmm gi rawatina ñi jugee muritani ndax at mu jot ñu ngi jànkoo ak ay gàllankoor yoo xam ne xam nañ ne yaakaaruñ ne am na kenn ku ko jublu waaye ñu ngi fàttali ñëpp ne rek ñooñu gani ñëpp lañ gani Sénégal lañ gani Medina lañ gani Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ñu ngi ñaanal ñëpp ñu nga xam ne tim ñoo nekk di yëngatu ci lépp loo xam ne dana yombal gàmmu gi bañ gàmmu ci jàmm gan yi dellu ci jàmm bàyyi barke loolu ci senegal waaye yóbbaale ñoom it barke loolu ci barke Cheikh Ibrahim radiallahu anhu barakati Mawlana xatmi Tijaani jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam